a Diouf ci 24actu.com ñoo ngi leen di a nekk euh, ko baaxoo defee ànd koog yéen rek ci lépp loo xam se ne dafay jëm ci ay programme yi xam se ne dafay soxal diine euh, looloo tax tamit ñu daal di fekk euh, ci kàddu kii di njiit réew bu France yëkkati ko jëmale ko ci umma islami bi yëpp ñëpp di ko ñaawlu loolee taxoon tamit ñu daal di doxantu tey ba këram fekk si ko fi ngir bëgg cee sekk ak moom ay waxtaan yu yaatu plateau waaye laataa waxtaan yooyu tamit dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo nuyoo ñu koy topp ci 24actu point com ñu soog a dugg suñu waxtaan. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noo ngi nuyu bokki àdduna bi ñuy seetaan yëpp fu ñu mën a nekk di leen ziyaara bu baax ci weeru sel yu ñu nekk di weeru gane jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ak a ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaka mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Cheikhul Khadim ñaan yàlla suñu boroom yàggal ko te wéral ko waaye di ko ñaanal mboolem kilifa diine yëpp ak mboolem jullit yëpp di leen dalal bu baax a baax soxna si incha allah. waaw sëñ Gana ñu daal di bëgg a dikk ci kàddu yi nga xam se ne kii di njiit réew bu France na ko muy Macron mu nekk loo xam se ne dafa daal di dal ci kaw kaw umma islami bi yëpp di ko ñaawlu kàddu yooyu sëñ Gana def ko daal di jërëjëf xanaa ni ko jullit yi nga xam ne seen pas-pas dëgër na ci lislaam ni ñu ko gisee rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay jëmm joo xam ne ginnaaw sunu boroom mooy ki gën a màgg mooy ki gën ci mbindeef yi sunu boroom daf ko telal doy na ca taraanga ja rek mooy koo xam ne boo tuddee turam moom sunu boroom da koy teg turam boo ne laa ilaha illa allah nga xam muhammadu rasulullah nga xam ne juróomi ponk yi ñu tënkee lislaam ba ca jëkk mooy seere na yàlla buur la moom képp mooy buur moom dong lañ war a jaam waaye it nga seere ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ndawam lañ mu yónni nga xam ne boo doon julli di woor di natt asaka di aj makka te saxaluloo ñaari baat ya jiitu sa gëm du dëgër kon koo xam ne boo ko tuddee tey boo doon boo doon noddu yaa ngi koy tudd boo de julli yaa ngi koy tudd nga xam ne day dayo bi ko suñu boroom jox mooy dayo bi gën a màgg te gën a rëy muy Moustapha sallallahu alayhi wa mu yónni ko ci kaw mbindeef yépp nag nga xam ne wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas xam ne ñépp la ko yónni ñu yàlla may ndimbal tawféex leeruk suñu borom tàbbi seen xol ñu tàbbi ci biir lislaam kooku nag bu fekkee ne dafa am ab noon bu ko tudd daf la war a naqari yaakaar naa ku xool tuuti ci la na xam ku ñuy wax Abu Jahlin defe naa ko xool ci histoire tuuti dana xam ku ñuy wax Abu Lahab te defe naa Abu Lahab mbokk la ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waaye ba mu ko ŋaññee wan ko ginnaaw borom bi subhanahu wa taala moo àdd ci moom tabbat yadda abi lahabin wa tabba ma agna anhu maalahu wa ma kasab sa yasla naaran daata lahab wa amratu xamalat xatta fii jiidiha xablum lu masad kon kon xam nga ne kon déclaration bu rëy boobu ak wax ju jooju suñu borom jëme ko ci mbindeef ngir jëmmi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon day mel ni kon yonent bi sallallahu ku ko day mel ni dafay naqari sunu borom subhanahu wa te bu naqaree sunu borom subhanahu wa taala na ci bépp jullit mu metti la diis la rawatina koo xam ne ndaw nga rawatina koo xam ne yow nekkuloo ci diine lislaam mën a taxaw waroon ñàkk xam-xam nag moo la jàppe waaye waroon nga xam bu fekkoon ne xam na dana moom ci ñoom li ñuy jàng bu doon dana leen jariñ dana war a xam moom fi mu taxaw ak fi mu nekk lu ko fi indi ak lu tax mu nekk fi ñoom waroon nañoo boole loolu ci seen biiri xam-xam ak seeni biiri xalaat na amul capacité indi fa boppam amul capacité ñëw fa liy doxal kawlu bi am na lu ko waral dafa am patron patron boobu dafa am kum tànn mu yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon daal kàddu la yoo xam ne <clears throat> képp kuy jullit naqari na la diis na ci sa ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam kenn waru ko touché kenn waru ko laal li Serigne Touba di wax ne muhammadun mukarramun mukarrimun muhtaramun du hurmatin muhtarim ku màgg la ku tedd la ku yàlla wormaal la ku war a màggal la war ko wormaal ma rasulullah sallallahu alayhi wasallam sëñ Gana mu mel ne kii di Macron dafa tooñ li nga xam se ne moo di jullit yi waaye rawatina yoonu murit ndax bu ñu ne yoonu murit mooy tey ji ku tudd yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam tudd nga Serigne Touba ndax ku ne xam ne Serigne Touba digganteem ak yonente bi nga nekk koo xam si ne dangay dañ lay dégg ngay waxtaan ci Serigne Touba ginnaaw bi nga déggee kàddu yooyu lan la daal di def ci yow waaw loolu mooy métti rek ndax xam nga yonente bi alayhi salaatu salaam ñun dañu ko wormaal ngir li mu nekk kilifa ñëpp waaye rawatina kilifa Cheikhul Khadim boo gisee yonente bi salaatu salaam bu ñu koy tudd sax dañu koy tudd ci biir mbindi li ko sëriñ bi tudd waaye li olof Njaay di wax ne xobu xel la ëpp na gémmiñu tef mooy rasulullah dafa ëpp ci noonu ñun ndax ki nu amul ku may moom Cheikhul Khadim moo jël léppam jox ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu am di yonente bi alayhi salaatu wasalaam sëñ Tuubaa waxul kenn ne li ma am fenn la jaare dafa wax ne yonente bi salaatu wasalaam bihi aruumu min malik bihi aruumu jamil xayri min maliki fa huwa al wasilatu fi sirri wa fi alam lépp lu ma bëgg ci yàlla maa ngi koy jaare ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente boobu nekk wasilaam te sëriñ bi li tax bu ñu ko tuddee bu ñu tuddee yonente bi alayhi salaatu salaam ku di ab jullit tooñ nañu la waaye rawatina sëriñ Tuubaa ndax lu tax mooy Serigne Touba moom mooy ki dakkan kin dakkantale te boroomam dakkantale ko ko euh, muy xaddiimi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy ki jóg di liggéeyal yonente bi alayhi salatu wasalaam te loolu li ñu koy xamee defe naa bu ñu delloo tuuti ci histoire danañu gis ne même Makka ak Madina ba ñu fa nekkee am ñoo xam ne ay kàccoor lañ di song ñi fi ñeet nekkal ñoom diine ba ñu amee ak jaaxal dañu tànn délégation yónni leen ñi ñëw njaareem ci Serigne Touba te ku ñu amalul kurdi jiite woon délégation boobu ba mu ñëwee ca biir ay waxam ba mu tàmbalee nuurul wilayat satixul burhaan yaxza lahu mutanawil al azal fanzur lahu mutajalliyan fi wëcci man jàlla suwaal al jahli fi sudan saaka al imaamu cheikh ahmadu man gada mutarabbiyan bilhamdi wa shukran cheikhu tariqati walxaqi walhuda haadu wara bilxaqi wal iman ca biir wax ja danaan ko ayaa xaadimal muxtaar dam ko xoolee ne ko ku la jàkkaarloo yow rek réer wiñ ñi nga ko ci der bi ñun dana ko yow yaay xaadim rasul waaye yow kat dañoo ñëw tey fii ngir lan ngir nga xool nu sa xoolin wu sell woo xam ne dana nu teggil suñ coono yii nu nekk ñun fanzur ilayna nusratan qadsiya tadul ala fi sir wal i'lan waaye waxtib ala ahli almadinati atfatan tardi nabiy almustafa al adnani gelbatunu rek ñeewantu waa makka ak madina loolu dana gërëm loo soppee ba rasulullah sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuba andi leen xasida ak man sàkk nga xam ne euh, man sàkk fii kaw ni abdullahi nuuru wara fallahi képp ku sikk sàkk ci nekk yonent bi sallallahu alayhi di leeru àdduna nekk aji gën gi mbindeef ku ko sikki sàkk ab dox nga ba muy jeexal lu mu wax laa yantahi madinatul munawwara suun xamaaha du baqaa in sawara aw ay da lu jëm mukk ca a munawwara lu tax xamaaha du baqaa in sawara yonent bi alayhi salatu wasalam yàlla borom bi subhanahu wa mooy ko ko ko ko aar kon moom euh, <clears throat> yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay xam koy xam ne dañ ko dul café kenn warul ko café bari na ko néew lu ma koy tudd ci ay wax fekk war warmaal ko ak ragal ko rek moo ko waral ndax dafa diis sallallahu alayhi wa sallam ndax yow boo amul lu may kenn yaakaaruloo ko mooy kenn ak xam gi nga xam dimension bi mu am ku xam si Amadou Bamba xam fi mu toll xam dimension bi mu am euh, defe naa comme le mooy sama kilifa yow da nga xam ne kooku ëpp na rëy na dama ko wax un jour 2018 ma demee Makkatal Mukarrama bi ma ñëwee ba ci rawdatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sama yaram daw sama rongoñ tuuru ma ne voilà kii rek moo mën a nekk jawri ni Cheikhul Khadim moo mën a nekk wasila Cheikhul Khadim lépp lu la Sëñ Tuubaa doon portale ci sang bi di la wax ci tedd nga ji di la wax ci ngëneel yi di la wax ci màgg gi bu sa tànk doxee ci diggante bii rek ngelawam soosu ëpp la da nga yëg ne bu ñuy wax xayru xalqillah afdalul wara akmalul wara kooku mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy ku màgg ki nga xam ne euh, suñ boo ko taggee sax yàlla tagg la li sëñ Tuubaa naan karimun mata tam daxu yam dax ka rabbahu maanaam boo ko taggee rek yàlla borom bi subhanahu wa taala daf lay tagg te suñu borom dafa fonk yonente bi alayhi salaam ba mu koy wax na ko qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam neen nit ñi ngir bu ñu ma bëggee bëgg man yàlla lañ la topp yow ba tax borom bi subhanahu wa taala wax ne man yutia rasul faqad ataa allah ku topp rasulullahi sallallahu la wa sallam topp na yàlla day mel ni ab jam-jam lay doon boo xam ne ci bépp jullit ndax sallallahu alayhi wa sallam ñëpp la ëmbal yërmande sallallahu alayhi wa sallam la sayduna ali waxoon daf noo gënal suñu lépp xam sayduna ali karamallahu wajhahu dafa waxoon ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahabu ilayna min amwalina wa abaina wa ummahatina wa min bi salaa sallam moo nu gënal suñuy ndey gënal nu suñuy baay gënal nu suñu lépp bu nit ki maroon ba mar ba jël ndox mu sedd ko jox muy naan ni muy yëge banneexum neexitu ndox woowu bëggin bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko moo nu ko gënal loolu Sëriñ Tuubaa dafa jël léppam jox ko yonent bi juttu lahul yawma bi ruuxi wal badan wa waladi wa walidayya fil ard kon en tant que jullit daf lay naqari nun nun murit moom daf ñu naqari ay yoon naqari ay yoon naqaral nañu ndax bu la ñuy wax ay jullit wax ashhadu an laa ilaaha illa allah muhammadu rasulullah waaye naqari waat nañu ci sunu kilifa gi nu amul lu may moom nga xam ne moo ko taxoon a génn ay këram xusuur yi xallat wal te anni tafaaraqat li maddaxi alladi anhu lmadihu qasiru wa نفالي وإبقائي وفوزي بلا علن بكوني خديم المصطفى تتبين يبجل كلي كلك اليوم ما غدي وإن شاء ربي لا أرى الدهر داوني kooku kooku mu jël léppam jeexal ko ci moom jël léppam jox ko nabiyuna al mustafa xayru wara xaradi fii kulli shay'in wa ma yaabahu aba yonente bi sallallahu alayhi wasallam la am muy bëggee bëggeelam kooku kon ku ko laal jamaat nga nu beneen jam-jam ndax ki nu jaral suñu bakkan jaral nu sunu lépp ci àdduna muy cheikhul xadim ku laal wasilaam rek danga ñoo laalaat beneen laalin woo xam ne gën naa metti moo tax kuy ab jullit rawatina kuy ab taalibe diis na ci sa xol metti na la mu nekk lu am solo sëñ Gana waaye tamit ñu gis ne loolu dafa mel ne dafee yàgg ndax gis nañ ne 2015 amoon na fi te ba tey France la ba tey ñu continuer waat ci loolu mu mel ne dañuy continuer di xeex diine xeex diine googee nga yaakaar ni ndax dina fi jóg ci en mu ñu bàyyi nii waa xeex diine moom du fi jóg mukk ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo xam ne wa sa yahudu qariba fa tuuba lil ghuraba yonent bi moo woon lislaam ci ak tumuranke la sosu waaye ci ak tumuranke yi lay delluwaat mais bu boobaa nag texe ñeel na way tumuranke yi te loolu yonent bi alayhi salaam waxoon na ne la yëti ala na zamanu yakunul xaabidu fii ala diinihi kal xaabidi ala jabra jamono ngi ñëw ngëpp sa diine day mel ni ngëpp xalu sawara kon yonent bi moom waajaloon na yépp ci ci ci ci ci attaques yi alxuraan yi waxoon na loolu ne Euh, gaañi kat yuriduna an yutfiu bi nuurallah bi afwahihim dañoo bëgg a fay leeru yàlla ci seen seeni làmmiñ waaye yàlla dana mottali ak leeram nam ko bëggee woon walaw karihal kafirun doon ko ne way weddi yéefar yi eh, naqari na leen loolu dana am tooñ googu du fi jóg mukk ndax benn tey kii di Macron dafa fésal waxam rek waaye am na ñoo xam ne ci lañuy ñuy waxtu wu nekk ci lu nërme l'islam lu lu jéem a gàkkal euh, diine l'islam lu jéem a gàkkal yonent bi alayhi salatu wasalaam te yonent bi alayhi salaatu salaam kenn mënu koo gàkkal labista siyaabal majidi wal fadli wal ula wa fiika min al axlaaqi ma ajizal kulla kenn mënu ko gàkkal tooñ googu nag du fi jóg ndax tooñ gi ñoom l'islam daf leen a déranger te xamuñu l'islam ndax seeni xol mooy dafa lëndëm te sëñ Moussa naan boroom xol bu gumba raw boroom gët yu fettegut mooy waral tey bu ñu laalee dara bu ëllëgee ñu mille 2015 ak léegi 5 ans la yàggul defe naa am na nu mu doon demee sax mën na bañ a nekkaat man na bañ a nekkaat gi mooy du ñàkk ñu di ko def ci seen i xalaat ndax ñoom wax naa la ne bu ñuy réunion moom la ñuy réunion bu ñuy dund loolu lañ dund ci seen intérieur looloo ca nekk mooy xeex lislaam ba ñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam léegi nag bu ñu eggee ci benn benn benn jamono bi dañuy jàpp ne war nañu ko génne fesal ko benn danañ ca natt ndax am pas-pas ndax mi ngi fi dana natt ba xam gëm yàlla gi mi ngi fi ndax gëm rasulullah sallallahu alayhi ngi fi fekk xamuñu ne l'islam leer la parce que bu ñuy xool ne rendement bi l'islam am tey njariñ li l'islam am tey bu jëkk bi l'islam door a tàmbali te xamagun woon dëgg-dëgg l'islam la nit ñi daan taxaw ci teeli xare yi ñu leen jam ay xeej di faat yonent bi dafa gënal ñëpp am na benn xasoo boo xam ne xasootu oxot am na ci koo xam dañu rey magam rey borom këram rey ba yow de lu musiba rëy rëy ginnaaw yaa ngi fi rek woyefe kon jullit ñi yàlla moo tabbal ci seen biir xur bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam saa yoo leen laale rek noonu lay demee kon ñoom it noonu lislaam la ndax euh, lislaam dafa am ay noon ñoo xam ne waxtu ne nit jullit ñi di mel nga xam ne lislaam gis nga ni muy gën a avancer lu ñu daan waxtaane ci biirub néeg ba mujj ñu génn ko ci am pénc ba mujj mu génn ci fu nekk ba lislaam tasaaroo te ci goxi àdduna bi yépp lislaam waxtu wu ne gis nañ na ñoom mi ngi gën a avancé seen ndaw ñi ñi ngi tàbb ci biir l'islam l'islam dafa mel ni ci ñoom benn benn géej goo xam ne dafa dajj ko rek ànd ak riir mu am doole daw jëm si ñoom ñoom la jàpp nañ seen xel yu gàtt ak seen xalaat yu gàtt ne l'islam wala yonente bi sallallahu alayhi wasallam xalaatu doomu aadama la mu installé rek ñoom bu ñu toogee seen réunion yeeg seen bureau yeeg seen philosophie yooyu danañ ci mën dara ñu ne nañu wut ay barrage yu koy karkaral mooy waral léegi-léeg ñu wax mooy waral léegi-léeg même li ñuy waxee li ñuy jëf ci suuf ci di ko xeex l'islam ak di ko yàq lislaam moo gën a bari li dafa fës rek feeñ mais toujours ñoom ci loolu lañ nekk waaw waaw ba tey comme sëñ Gana comme ci loolu lañ nekk toujours ma mu mel ni jullit yi tamit est-ce que jotul ñu booloo euh, taxaw xeex li ngir loolu mu man fee jug waaw xam nga jullit ñi moom alxuraan dafa àddu woon si ñoom bu yàgg moom mm-hmm. waxee ne <clears throat> wala tanaazahu fa tafshalu wa tadhabu rihakum ku leen xëccoo mm-hmm. boo leen xëccoo rek mm-hmm. da ngeen di échec wa tadhabu ko mooy da di ñàkk force te xam nga ne tedd nga bi yàlla di wax dana tedd nga yàllaa ko moom ak yonent bi ak way gëm yi mais ci ci ci côté jullit ñi dañu xaw a dellu tuuti ginnaaw ndax benn euh, lislaam dafay diine joo xam ne dafa taxaw ci kaw pas-pas taxaw ci kaw gëm-gëm jullit ñi yonent bi alayhi salaatu salaam ba muy wax pour ngir ñu mën a xam li ñuy bëgg ñu mën koo am daf ñoo digal nu benn ndax yonent bi alayhi salaam nee na kenn ci yéen gëm gim gëm yàlla du mat ndare li mu bëggal boppam mu bëggal ko ay mbokk mais jullit l'islam dañu ko def ay parti def ko ay xaaj def ko ay kuréel doon ko ne mën na nekk ay xaaj mën na nekk ay parti mën na nekk ay kuréel mais du teew wuute ay gisiin du tax nag nu wuute pas-pas ak gëm-gëm mooy nu xam ne ñun ñëpp aw yoon lañ ci kenn lañ jëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi ci kan la ñu joxañ borom bi subhaanahu wa taala wa fi rasulillahi uswatun xasana benn giddi la am muy royteef bu ñu war roy mu yonent bi alayhi salatu salaam wa fa xudu wa ma nahakum anhu lu leen yonent bi alayhi andil na ngeen ko jàpp loolu suñ tubaa naan yaa ayyuha nas ubudu rabbakum bima bihi xayru wa jaakum yéen ñi gëm yàlla na ngeen jaamu yàlla te jaamoo ko ci li ko yonent bi alayhi salatu salaam kaw ndax fi tey bu ñu doon wax lislaam ñu bari la doxinu lislaam fi ne man mënoo ma mënuma la génne ci lislaam mënuloo ma génne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na saa yoo waxee ni dóob julit yow mi ko wax dóob julit yow yow yaa tub julit kon kenn du takfir nit ah? man li may taxa a fi ne sama baay mënumaa waxal lu tax may dugg ci lislaam sama maamul man maay seere ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kon ma sama pas-pas sama dugg ci biir lislaam kon nag boo nekkee ci biir lislaam yow yaa war a sàmmat lislaam yaa war a taxawaat lislaam jullit ñi ñoo war a booloo nekk benn bolok waaye fi ne jullit ñi euh, gëm gi gëm yàlla da daf ci ëpp gëm goo xam ne ci ci wax rek la yonent bi euh, aba aba isaqa aba ku ñëw aba isaqa ahlu basra mas nañ ko laaj ni ko waaw lu tax suñu borom waxoon ne yéen jullit ñi ñaan leen yàlla waaw yéen boo leen ma ñaanee ma may leen adoxoonu astajib lakum te ñi ngi ñaan yàlla te ñaan gi ngeen di ñaan yàlla nanguwut mu tudd ko ci fukki mbir ne leen ba ci jëkk araftumullaha taala walam tuudu xaq da ngeen a xam yàlla ba noppi mais joxoo leen ko àqam xaraatumul quraan walam taamalu bi jàng ngeen alquran mais jafewoo leen ko nee ngeen ci xeetu yonent bi ngeen bokk waaye jëfewoo leen am nee ngeen iblis seenum noonu la waaye yéen a ngi koy topp gëm ngeen ne dee dëgg la waaye jëloo leen ko suul ngeen seeni néew waaru woo leen lekk ngeen xéewalu yàlla gi santoo leen ko yitte woo ngeen ayi bi jàmbor yi bàyyi seen bopp kon comportement yi tax xam nga yàlla inna laaha laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim yàlla du changé nit ñi lu dul nit ñi ñoo changé ci liñ nekkoon yàlla lam tëraloon jëmba ak barki dem ci lool la nekk te gis nga bu fekkee ne jullit ñi wàcc nañ yoon yuñ war a jaar nu wun caa jaar yàlla dana leen booleeg saay-saay su nekk seen kaw di bajantu ci seen kaw te ñu gën a baax ci seen ñooñ bu ñaanee yàlla du ko nangu kon faaw ñu xoolaat bu baax a baax position bi jullit ñi war a am bañ a bañ yàqante bañ a iñaanante bañ a xasante loolu sëñ Tuubaa lu ñu koy digal waxtu wu rek loolu nag bu amee bu bu lislaam jógee wax bu buñ jàpp ne lislaam ñépp a ko bokk lislaam ku fi jóg jóg ngir lislaam na ñooñ lislaam ñëpp ñu jàppale ndax saay-saay bii taxaw tey wax Macron am na ay éléments yoo xam ne ci ci ci ñoñam moom la ñuy jàppale te léegi ku ngemee dëkk yàlla ngemee dëkk rasulullahi ku ragalut yàlla ba ngemee koo dëkk ngemee dëkk mag ngemee dëkk rasulullahi xanaa dama jàpp ne loo loo ragal ragal xanaa waroo ragal boobu saay-saay nag Macron yàlla la dëkk ak waaye yàlla di rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yow sa intérêt yi adduna tax te bu la yàlla jël ci si sa kër di la di la fekk ci si biir njaboot di jël sa ruu ñu lay waqe di suul macaron ku dul macaron mënu ci dara nga ragal ko gir intere yi àdduna fàtte bind gi la yàlla bind ngir daraje rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga fàtte loolu yow te li ci gën a garaaw mooy bu nodd jàkk jotee nga waaxu wuti jàkka ja bu julli ajjuma jotee nga julli ajjuma bu alquran jotee nga yor alquran bu nu waxee nga la jullit laa ñu lay seeral jullit la taalibe la te bu ñu touché l'islam doo wax googu l'islam l'islam gu doy waar la soxna si loolu daal euh, bokkut ak lu suñu waaji taxawee woon Cheikhul Khadim moom l'islam képp ko a génn képp la amoon l'islam rek la dëgg ma loon yonente bi sallallahu alayhi la jëloon jox ko muy léppam nga xam ne jaraloon na ko bakkanam jaral na ko njabootam dammi wa ahli wa awlaadi fidaun lahu abudan xadiman lahu muskaana li sanada mbokk yi dara la desewul lépp rasulullahi la ko jox amul sax lu muy yëg dafa egg ci ne bu ma tawatee bu kenn wut lu ma faje tuddal tur bi rek ma wér sifaa u jismi wa shifaa qalbi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam moo nekk lu wétta la bit gis nga ba mu nekkee ca nasaraan ya ñooñu ñoo gën a soxor ñi ñoo gën a bon ñi ñoo gën a wow ay xol ñii te lam fay wéet wéet yonente bi lay wéet muhammadun dikruhu unsi wa mafrahati wa nuuru qalbi wa aadai wa rahati kon nag ab jullit tey xam ne gëm-gëm de su ko foyee du lu ñuy kalkin naan dañoo nekk ci vingt et unième siècle dañoo war a changer programme yi xool na ñuy gis nga loolu wax naa du adduna te loolu yàgg naa am ay ruur ba ci muy Sénégal muy feneen da daan jékki-jékki seen ñu dal dara ci lislaam dal dara ci kilifa diine ñu naan nangam diw intellectuel laak diw professeur sangam laak diw def far maahilul labi man yansuru fi amri wa nahi wa daghayru xeref sëñ Tuubaa ne ne intellectuel dëgg ku yeewu dëgg mooy ku ñëw ki nga xam ne dafa joxe bakkanam daan bakkanam ngir ginnaaw dem te kay pouvoir bu Macron maanaam am na ñu ko ëppoon ay pouvoir am na ñu ko fi jiitu woon jëkk koo falu du moom du jëkkute falu France te du mujj falu France bis dana ñëw ñu ne ancien président bis dana ñëw ñu ne ndemu si yàlla sa Macron dee na du tee France di fi ne ñeneen di jiite France yàlla di fi ne jàkka yi di jóg rasulullah ñi di ko tudd mu wéy ba yomal xiyaama na solo macha allah euh, waaye tamit dañuy dellusiwaat ci ñi nga xam se ne ñenn ci euh, réewu jullit ji dégg nañ ñi nga xam se jot nañ cee yëkkati àddu ci mooy ku ci mel ne euh, réew bu Maroc ak réew bi nga xam se ne moo di réewu Turquie waaye suñu réew mi di Sénégal mu mel ne peuple bi ñoo génn di wane seenu naqar ci li nga xam se ne laal nañ ko ci jullit yi waaye déggagun suñu njiitu réew wax ci loolu tamit ban jàngat nga ci daal amee am yow waaw loolu mooy man damaa xamul lu ko ci teew waaye wax ko ci war na wax ci moom war na ko mm-hmm. ko sa suma ci moom waaye ginnaaw maa ngi koy gis ci jàkka yi maa ngi koy gis ci jumaa yi di ko gis muy yor alxuraan di ko gis muy nuyu suñ kilifa yi ñu naan ab bi la nangam ak nangam wax ci war na ko ndax tey de bu fekkoon ne dañ ne kulib julli dee comme moom ab julli la kon moom ci ñuy faat la war a bokk tey it yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane woon dimbaleel sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee ñu ne ko ñu ne sa mbokk man nañ ko dimbale ci bu tooñee waaye buñ buñ ko tooñee nuñ koy dimbalee bu tooñee nuñ nuñ koy dimbalee maanaam dimbalee sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee mu ne waaw bu too buñ ko tooñee ne néewal ko doole mën nañ koo dimbale waaye bu tooñee nuñ koy dimbalee ñu ne ko yaa tooñ ginnaaw sab xarit la moom bu Macron nekkee ab xaritam wala mu nekk kilifa wala mu am luñ bokk na xam ne tooñ na te kat bu dee kilifaam boobu jàmm moom mii du mën a am jàmm ndax gis nga lii ñuy wax ni économie yi bu amee problème daanu ñun dañ koy yëg te moom moo jiite réew mi dana gën ci moom moom kenn du ko gën a métti ci moom kon nag sa kilifa bu bu tooñee danga naan ko ah neexul ba neexul da yaa xay sa juum nga loola poussé ji nga di ko wax waroo koo wax sa yoon nekku ci dimbaleel sa mbokk bu tooñee ak bul ko tooñee ginnaaw yaay dajeeg moom yaay toogandoog moom yaay waxandoog moom tooñ na l'islam du caaxaan surtout yow réew mi nga jiite quatre vingt pour cent di ay jullit yow ci sa bopp nga représenté na jullit laa sa gouvernement la ci ëpp lépp ñu ne ay jullit lañu nee nañ ay taalibe lañ ñu ngi jàng alxuraan bu ñu demee bu korte jotee da nga leen bu julli jotee it da nga leen bu ne bisu événement jot na da ngay gis ñu buñ ñëwee Touba wala dëkk buñ dem dañ fay toog bu ajjuma jot ñu jullit ci jàkkate image yaa ngi fi kon ñooñu ay jullit lañu la ñu wax ndax jullit moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ki bu waxee ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah ku ko rey rey jullit ku ko lor lor jullit kon ginnaaw seere nga ne yow jullit nga yaa ngi tudd yàlla yaa ngi jullit jàkk yi lii mooy wëy maanaam nguur lu mu yàgg-yàgg day jeex te sëñ Tuubaa nee na woon Euh, boo xamoon lii ñëw ci sa kaw kanam law kunta tuurinu maa yati amaamaka min hawlin wa min sakaratin kulla iraanin la ma shagalta bi dunia la baqa alaha cay boo xamoon lii ñëw ci sa kanam bis dana ñëw yàlla xameewul son excellence xameewul roi sangam xameewul chef nangam xameewul dara bis dana ñëw machine yëpp tiim la duñu gis sa bopp bis dana ñëw appareil yëpp tiim la docteur yëpp tiim la duñu gis dara sa rooga di rocc ko te doo ci man dara ñu takk say tàgg takk say loxo suul loolu nag ku ko fàttalikuwut diggante bu gàttu àdduna jërul saggane rasulullahi rasulullahi du ku nuy foyee am na solo jërëjëf sëñ Gana waaye ba tey gis nañ ne comme que tooñ la la def loo xam te ne dafa àgg ci suñuy xol man nañ ne euh, tooñ googu yi jullit yi tamit ñi ngi wax bu ñu bëggee fayu nga yaakaar ne ci yan pexe lañ war a mën a jaar ngir loolu ñi ñu laale ñu mën a fexe ba mën leen ko xam nga ñun lislaam daf ñoo digal yonente bi dana man raa minkum munkaran fal bi yadi fa in lam yastati fa fa indi lam yastatim fa bi xalbi wa dalika adaful iman ku gis ci yéen lu la naqari na nga ko wax boo ko mënee faj ci sa bu doon loo mën a faj la na nga ko faj tey Macron bu génnoon ci mbedd yi di dox jullit ñi dal ci kaw seen pas-pas egg na foofu kon mën nañ mais comme koo xam ne yaa nga cay tata ay junni junni nit a lay gàdde ba ne yegg ci yow kon loo ca man kon kon defe naa jëfandikoo loxo boobu doo ko man waaye nga sañ nag génn ci say micro sañ génn ki say palaatoo génn ci say programme ci say gàmmo ci say conférence wane ne liñ def rasulullahi naqari na bu la yàlla natoo doonoo koy wax ñu di la déglu doonoo ko mën a wax ci mbooloo nga fas ci sa xol boo jullee naafila wala balaa ngaa julli naafila naqarlu ci sa biir xol liy noonu lislaam bi wax ñaan yàlla yàlla ngay ñaan dellu ci moom ndax yàlla kat boo ko ñaanee dana la may surtout nga ñaanee ko ci ñu laal ab soppeem surtout nga ñaanee ko ci ñu laal yëfam point boobu nga man ci ci ci ci ci ci ci jullit bi. ci côté bi mu nekk ngir mën koo naqarloo. est-ce que boycotter seen rek doy na xam nga loolu dama dul xam ba xam ki koy boycotter bu fekkee ne tey wane na naqaru bay manifestation génn wane ne naqari na la ndax noonu dañoo amul naanam daanaka suñu bopp ñun dañoo jéggaani suñu lépp ci àdduna suñu lépp dañ ko jéggaani parce que nit ki faaw mu xam boppam ci ne boo mënee war ngaa mën a dem sans nangam te yow misaal. benn bis bi ngay naqarloo wala tey nga ne man de bàyyi naa benn produit wu sàngam ngir ne l'islam lañ laal wala nangam ak nangam mais tey am na réew yoo xam ne bu ñu ko defee ñoom mën nañoo mën nañ loolu parce que am nañ seen produit yu bopp am nañ seen nangam mais Sénégal lu ëpp ci Sénégal daanaka ñoom li ñuy dundee la ñoom. est-ce que du looloo tax tamit ñu bëgg ñëw jàpp di mais bu ñu nee jàpp du ñu noot it du ñu not ci lislaam moom. Mhm. mën nañ ñoo not ci mën ñoo nax man nañ ñoo not ci seen i business waaye tey jii bu rasulullahi laajee bakkan ñun ñëpp jeex loolu moom bu rasulullahi laajee bakkan ñëpp jeex loolu loolu loolu loolu mu ne suñu cee not rasulullahi gën lekk rasulullahi gën naan rasulullahi gën ci nun lu ne sëñ Tuubaa bakkanam la tayle woon ngir rasulullahi james na koy xeej tëjees na ko ci kaso te benn intérêt adduna taxul bëgguta moom i dëkk tax muy am bëgguta jiitam réew tax muy am benn intérêt personnel taxul lu sengee l'islam képp moo ko taxoon a jóg luy aar l'islam képp di kenn nit mais loolu mu dëggal ci boppam moo ko may tey lépp daw topp ko loolu mooy këlkin yi ma la wax bu ñu ko tegee waaye wa ma min daabatin fil ardi illa ala llahi rizquha waaye ku dund ba déwén lekk ba déwén yoral ay milliards bu yàlla ne suba doo reer doo reer bu yàlla ne suba ngay dee nga dee bul yor ñaar dërëm bu yàlla ne da nga dund da nga dund mais mais tawxiid ji nañ ko jiital yàllaay dundal du France nuy dundal de yàllaay yore du France nu yor de yàllaa nu yor yàllaa nuy dundal waaw. sëñ Gana mu mel ne tamit loolu wax nga euh, lu am solo waaye pour ñu jeexal fi rek gën a yaatal euh, nga pour nga soññi ñi nga xam se ne ñi ñuul ñi ndax dafa mel ne loolee tax ñu mel ne ko amul ci seen bopp bàyyeeku ñu bëgg leen a jàppe comme jaam comme li nga waxee ne ñu bëri ñoom ñooñu ñoom tey ji ñoo ñu ci mën a jàppale suñu ginnaaw est-ce que jotul tamit nit ku ñuul ki gëm boppam ndax ñoom sax dañuy bañ sax ba seen seenu làkk sax bu jëfandikoo li nga xam se ne moo di làkk français bi wala defa yooyu defe nañ ne fi ñu toll nii nekkul nit ku am maanaa est loolu tamit taxul tamit ba tey njaam nga diggante loolu ñun moom dañoo bokk ci ñuy bañ loolu xam nga da ngay Sénégal kuy def plateau ñuul kukk ñu xam ne nga juddoo ci àll ba say ndey ak say bàyyi mën naa am koo ci waxoon a ah, xamu ko xamut bee ñooñu ñu ne intellectuel nga toog ci télévision bi parler parler ba mu neex nga ne mais d' abord nuñ koy waxee sax ci olof xawma je ne comprends pas d' loolu mooy lan sëñ Tuubaa da doon fa lay sa yuji bu sawadul jismi safahatul fata wa suul fahmi gis nga bu ñu déggoon suñu waajooju duñ am benn problème Sénégal lu ñu dellusiwaat tuuti xool njàngaleem Sëriñ Tuubaa sëñ Tuubaa dane woon ñuulub der du tee comprendre texte yi ñuulub der du tee cëddu ca séddu cër yu rëy yi tey adduna bi xoolal foo tudd adduna boo tuddee ci école ci nit ko abuk bañ boo tuddee ci koo xam ne dafa taxawal jamono tabax jamono da nga dellu ci sëriñ Tuubaa xool ko combat combat bi mu combat ak nasaraan bi ni man ni mu leen manee tey fu tubaab bi ma sa am chef de canton yi taxaw wala tubaab bi fu ma sa nga gis fa nangam sëñ Tuubaa def na fa seex soroor yaa ngi fay jolli alxuraan di fa riir tey jii ñaata ñaata ñaata ñaata loolu xeex boobu mu xeexoon mooy loolu mooy xam boppam faaw ñu xam ko Sénégal dafa tàmm ah, nit ku ñuul dafa tàmm toppe al toppe jàpp na ne maanaam bu demee rek moom dong ñàkk li muy am kon faaw ñu yaraat suñu ndaw yi jamono faaw ñu jàngalaat suñu ndaw yi jamono xoolaat ca borom xam-xam yu jëkk yi xoolaat ca borom position yu rëy yi nga xam ne xeex ak noteel lañ fi nekkee woon di ko bañ yàggoon nañ ñu gën a mën a not mais bañ ko tàmbalee xeex dañoo dem ba xam loolu loolu dañ koy tàmbalee ci fu mu mën a doon ci réew mi ci feneen fu mën a nekk loolu waxuma la même même même tey Sénégal gii rek ku la gën a jege nguur day jàpp ne moo la gën bu photo yi ñëwee moom lañ ko war a jox a wàcc ci télé parce que yéen a bokk télé bi ko mais da war a wàcc moom mooy jàll loolu warees na ko defal ku yàlla fal ku jiitu waaye dañ koy def ba ci koo xam ne moom bu ñëwoon kër Gana Messere pour mu gis ko sax problème la war a doon mais buñ dajee man faw dañ may ko yaa ayyuha nnaas innaa xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'il li taarrafu inna akramakum inda llaahi atqaakum ab saay-saay mën ta gën kenn mën naa noota ci caay-caay waaye ku gën ta gën a màgg mooy ki gën a ragal yàlla am na solo jërëjëf sëñ Gana moom la ñu daal di àndaloon mooy sëñ Gana Messere Maxtaar moom la ñu fekk si woon ci këram ngir waxtaane euh, ponk yu am solo yi nga xam se ne moom ngeen daal di dégg ñu jot ko jukki ci jotaay bi lan ngay tàggoog ñi lay topp ci 24actu wax di ñëpp di jaajëfal nag waa Xuddaamul Xadim bu baax ci taxawaay bi ñu taxaw démb wane seen naqar ci njiitu sëñ Hamza ak sëñ Sidi Mbacke sëñ Abdul Xadr maa ngi leen di sant sama kàddu bopp ndax li may wax dafa ma concerné ci en tant que taalibe sëñ Touba en tant que jullit bu ñu laal pas-pasam taxanaa lu ma yées yées lu ma ñàkk-ñàkk jomm lislaam teral na ma teraanga ju toll ni bu doon laaj bakkan ma war ko mën a joxe kon ci en tant que jullit maa ngi leen di sant di sant mboolem ku taxaw ci naqar lu lii noo ngi lay ñaanal yàlla noo lay sant noo lay gërëm ndax ñëpp la war a naqari wane ne naqari nañu ñoo ngi dellu si di wax ne naqari nañu ñu ci war a wax nañu ci wax wax naa ko ñu jiite réew mi nañ xam ne seen xarit daa juum wala seen kilifa daa juum nañ ko wax juum nga boo amee sa waay buñ ko tooñee dimbale ko waaye bu tooñee dimbale ko daa juum xamal leen ko ne daa juum ndax kat mënoo dugg ci jàkka di wala jullit nga di woor di wax alquran te buñ tuddee lislaam doo wax lislaam a jiitu pas-pas a jiitu kon noo ngi leen di sant yéen waa 24 actu di leen gërëm ci seen taxawaay wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Gana Messere woon moom lañ fekkoon fii ci këram ngir waxtaanee li nga xamante ne mooy kàddu yi nga xam ne jotoon ngeen ko fee dégg kii di njiital réew bu France di Macron jot ko fee yëkkati euh, jullit yëpp di ko ñaawlu rawatina umma islami bi dégg ngeen ci li nga xamante ne moom lañ ci jot a jukkil ci ay yaatal mu doy sëkk ñu leen di sant bu baax yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi doon topp ci 24actu.com di ko sant ci moom mi ci jotaay bi ni ñu ko yombale ndax ginnaaw bi ñu ko fi woowee rek yàggul te xam nañ ne te yi xat na waaye lépp daan nañu koy nangul te xam ne lépp rek eh, ci lu baax rek moo ñu ko tax a jóg ñu koy sant baax di ko gërëm di sant yéen ñi xam se ne yéen doon topp ci 24actu point com di leen jox dox daje ci beneen yoon